الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي جلدي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 baatu assalaam ngay tàmbalee asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mu ne la waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu loolu lépp day wane ne lislaam jàmm moo ko tax a jóg booy julli sax ba àgg ci taaya dangay ñaanal jàmm yonent bi nga xam ne moo indi julli waaye dangay ñaanal jàmm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 لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما بقي جام سو أمول أدونا دردو باخ سو جام أمول ني لغي سيني لغي دانا يقو ني جامو يالا سيني جامو يالا دانا خجم كندو مانا جانج كندو مانا فجو كندو مانا دف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 شغلت بالشكور عن تذكر ما قد جرى بيني وبين العسكر شغلني شكر إله قبل كليتي عن ذكر ماض من بلا أمنا بتاخل بوم بند وخنا كيف جسم ما بند مي خمنا أجي بند جي جيغل كيف كوكو تدو نيان يالا كين كو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 could الرسول أشهد أن رسول الله

على الفلاح ki jàmm rek la don wax mom la don jëf motax mu nan wabi jaddid as sabil bila idan aw alami motax mu nan biix di bila bukai ñukoy togn te fayiwul ñukoy génne mu jéggelé ظلمتم العبد الذي لا ينتقم لنفسه مجاهدا للمنتقم أخرجتموه من دياره بلا حق وجاهد وقاساه البلا لوجه من عنه عفا عنكم عفا كن موم لول مودون او دخينم مست خلو مست خلولو مست خيخ مست خيخلو jàmm nag yàlla def na ko ci réew mi ndax kilifa yi ñoo ko sabablu ñoo ko sàkku ñoo ko liggéey waaye jàmm dañ koy suuxat bokk na ci liy xajamal jàmm nag mooy tooñ yàlla bëggul tooñ ndax moo ne yaa ibaadi inni xaramtu zulma ala nafsi wa jaaltuhu baynakum muharraman fala tadaalamu yéen sama jàmm ñi araamal naa tooñ ci sama bopp araamal ko ci seen diggante kon bu leen tooñante ku ñu tooñ nag soo mënee jéggale nga jéggale soo munta jéggale nga fayu kem nañ la tooñe wa jazaau sayiatin sayiatum misluha fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala allah a cheikh mbàkke radiallahu anhu daana wax ne bokk na ci li ku gën a metti mooy dafa bari ci biir yoon wi loo xam ne bokkul ci yoon wi te loolu ku xam-xàmmee xam nga ko waaye am na ñoo xam ne du ñu yendal du ñu fanaanal ngir saafara ko moo tax sunu kilifa yi di wax di digle di tere di yeete ndax bëgg rekk njaboot gi tënku ci li nga xam ne mooy santaane yi sëriñ bu mag bi doomu aadama nag mën nga koo tooñ ci alalam wala njabootam wala deram wala wayjuram bu dem pànk du ko muñ waaye bu dee muñkat mën na koo muñ waaye ki nga xam ne pànk la amaana mu fayu yam ca nañu ko tooñe waaye amaana buy fayu mu ëpp te su ëppee nag wolof yi nee na wolof xamul ku fayu ku tooñ xamul ku tooñ ku fayu la xam bokk na ci tooñ yi nga xam ne day diis nag ci nit ki mooy nga tooñ ko ci pas-pasam am na ay safaan yoo xam ne bu ñu ko jëmalee ci sa kilifa boo dajeeg benn taalibi bu ko mën a dékku na nga xam ne am na téeméeri junniy taalibi yoo xam ne duñ ko mën a dékku te safaan yooyu ay gone yu ndaw yoo xam ne seenum njàng demul fenn seenu ràññee demul fenn ñoo koy yëkkati di ko jëme ci Cheikhuna Ahmadul Xadim te la ca ëpp day nekk ay masail xilaafiya loo xam ne boroom xam-xam yi ñii dañoo wax lii ñii wax lee yow nag nga ne la ma wax rek moo wér bokk na ci loola tawassul Manam yallaahu bil Moustapha Sindiid yallaahu ñu ne la loolu kenn du ko wax jàng xasida ñu ne xasida kenn waru koo ndax xadis gën te kendo du ko te xasida mooy sant yàlla tudd yàlla sabal yalla bàkk yàlla ñaan yàlla jéggalu yàlla jullu ci yonent bi ñaan luy defar àdduna ak àllaaxira ñaan yoo xam buñ la bàyyi woon ak sa sam xel du ko rabbu xam nga ne wajal midadi yi fawqa kulli ma'i barakatan ka matari samaa i bu la bàyyi woon ak sam xel doo ko mën a wax boo ziyaaree barab ñu ne la kenn waru koo def boo julle ci jumaa ji ñu ne la kenn waru koo def boo joxee hadiya wala ñu laaj la ko ñu ne kenn waru koo laaj te kenn waru koo joxe te keroog xareb xaybar ku tedd ka dafa laajte Ousmane joxe téeméeri giléem dollewaat téeméeri giléem dollewaat téeméeri giléem keroog keroog la ko mbaay yàlla ni ma darra usmaanu ma faala baada haadihi usmaan lu weesu tey mbaay yàlla nañu ko lu ko neex na ko def bu ñu wootee ca tool ya mbooloo ma dem nga ne loolu kenn du ko def dafa araam te kilifa goo xam ne la muy fàggu da koy defaat ci jaame yàlla yi day jaamu yàlla ci jaame yàlla yi boo toogee fi suuf nit toog ca kaw ñu ne loolu dafa araam boo fóonee loxo ñu ne sujjóot yàllaa ko moom boo gàmmoo ñu ne bidaa la boo màggalee ñu ne bidaa daala boo jébbaloo te mooy jaayante rek ci ndax ci yàlla la ñuy jébbalu wajjahtu wajhi li rabbin ak jalla an waladin kon ci yàlla la ñuy jébbalu waaye nag dangay ngay ab jaamam bu mu gërëm mu lay teyte ci yoonu yàlla boo fóonee loxo ñu ne da ngaa sujjóot te yàllaa ko moom yu mel noonu nag buñ ko dee yëkkati sëriñ bi bi sunu kilifa jàmm rek lay woote jàmm rek lay santaane waaye ki mën a def jàmm mooy taale bi bi nga xam ne dafa ànd ak xelam buñ ko digalee mu jëf buñ ko teree mu bàyyi waaye ki xas tàggoog sagoom dootu dégg ndigal dootu bàyyi tere moo tax mu mot teey moo tax ndaw yiy wax te xamuñu xàmmeewuñu na leen seen kilifa di artu nguur gi ŋànk réew mi tam na artu na artu ñiy tooñ ndax am na réew yoo xam ne tàkk na te la ko taal moo yées lii kon ñoom ñi nga xam ne ñoo mën a artu bala ñoo àtte nañu artu wolof day wax ne diw day mën naa dëkk ak jaan ci biir pax loolu lu muy firi mooy dafa jàpp njaamuram ndax jaan loo ko jege-jege te jàpp sa do du la laal man nga dëkk ak ab yahut di maslaak moom su amee ngénte nga dem su amee céet nga dem su amee dëj nga jaale ko tam téye pas-pasam nga téye sa pas-pas ab nasaraan man ngaa dëkk ak moom am ak moom jàmm bu xewlee nga dem boo xewlee mu ñëw tam téye pas-pasam nga téye sa pas-pas katu xërëm sax man ngaa am ak moom maslaa bu amee ngénte wax la ko nga dem lu mu xewle nga teew boo xewlee mu teew tam téye pas-pasam nga téye sa pas-pas gannaaw ñooñu nga war a mën a maslaal tañ téye seeni pas-pas waxuma la nag ab jullit kon jullit bi nga xam ne mooy sa mbokk moom nga war a gën a mën a maslaal mu téye pas-pasam nga téye sa pas-pas te itam képp ku bëgg yaatal lislaam am na ci réew mi ay ruq ak ruqaan yoo xam ne lislaam daanaka dafa tumuranke ba fii mu ne senegaal am na ruq yoo xam ne dañuy jaamu xërëm am na ci senegaal am na ñoo xam ne xamuñu dara ci lislaam kon ku bëgg yaatal lislaam foofa dañ ko faa soxlaa lool waaye fi xas nooy nepp ku fi ñëw ni dangay yaatal lislaam di tooñ nag nit ñi ci seeni pas-pas su demee ba ëppi loxo doo ci mucc kon nañu delloo ci xel yi nañu xam ne njabootuk Cheikhul xadim gi dañoo tënku ci ñetti ponk muy at tasawufu sunniyul xaalis kenn mënta dox seen diggante ak moom dañoo tënku ci al aqida ashariya kenn mënta dox seen diggante ak moom dañoo tënku ci ngirum imam Malik kenn mënu leen koo xañ ku tënku ci leneen nag mën nga caa tënku di maslaak ñoom ca la nga séq ak ñoom ñoom itam ñuy maslaak yow ca lañ séq ak yow te kenn ku ne téye pas-pasam ndax xërëm ku ne xam na ne lépp ko tane te jaamukatu xërëm yi sunu borom dafa waxoon ci alquran ne ñiy jaamu leneen lu dul yàlla bu leen ŋàññi seeni xërëm ndax kon ngeen tooñ leen te su ngeen ŋàññee seeni xërëm ñu wëlbatiku ŋàññ ma man yàlla wala tasubbu alladina yad'uuna min dunillah fa yasubbu llaha adowam bi gayri ilm kon nanu xam ne sunu kilifa moom jàmm rekk la bëgg moom la woote waaye nag nañ ko rus ci bëgg la ko jàmm ana nu ñu koy ruse ci wut la ko jàmm mooy bu ñu tooñ njabootam ndax njaboot gi boo leen tooñee ña amul sago dootuñu déglu ndigal dootuñu bàyyi tere su boobaa réew mi dana tàkk te bu tàkkee kenn du ko jariñoo yàlla na yàlla sàmmal na sunu kilifa gi yàggal ko ci sunu kanam te lépp lu mu sumb yàlla na ko yeggale te su koy yeggale yàlla na nu ko ànd ak moom yàlla na yàlla tasaare jàmm fii ci senegal sëriñ Abdul Ahad waxoon na ne jàmm rekk fi xew la mu waxoon nag du taxu kon loolu rek kay am bu soobee yàlla wa wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.